Colonel Simon sax commandant l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès. Euh, cérémonie de clôture du cours des futurs commandants d'unité. maanaam benn session bu ñuy formé li ñuy wax fii les de compagnie. donc commandant de compagnie mooy chef bi nga xamante ne day commandé diggante cent cinquante personnes ba deux cent personnes deux daal. bi sage bi jeexee daanaka ñu ñëpp kontaan nañ ci ñoom lu ñuy wone lu ñu wone si engagement si détermination lu ñu wone aussi rassuré nañ sañ nañ wax ne ku si ne bu delloo dëkkam wala bu delloo ci armée am duñu rus parce que ñu ngi leen jàngal fii maîtriser nañ ko mën nañ ko te aussi danañ ko mën a dérouler n'est-ce pas fu ñu leen di affecté donc nous tous satisfaits kontaan nañ si ñoom kontaan nañ tamit si teewaay bi ñu autorité yi fi ñëw n'est-ce pour euh, accompagner ñu mun ak stagiaires yi partager moment yi nga xamante ne vraiment c'est très marquant euh, ci stagiaire que ñoom ñaar entre différence bi am entre section ak commandant d'unité bëri na bëri na wante dinaa insister ci benn bi mooy volume bi donc comme li ma ko waxee section maanaam vingt cinq ñaar fukk ak juróom ba ñett fukk lañu ñu doon mais compagnie daanaka dina dem ba téeméer n'est-ce pas ak lu teg donc déjà côté volume bi rek compagnie bi mat na fukki yoon n'est-ce pas section donc ça veut dire responsabilité dañ gën a bëri engagement bi aussi war na gën a bëri parce que nga gérer ñaar fukk nit wala ñett fukk nit waru doon benn nga gérer téeméer nit matériel tamit. n'est-ce pas du bokk donc commandant d'unité bi war na bàyyi xel ci nit ñi war na bàyyi xel aussi matériel bi ñu koy dénk parce que moom moo ko war a gérer moo ko war a administrer wante ñun ñëpp fu mu toll nii nous sommes tous confiants que ni ñi génn nii am nañ xam-xam bi nga xamante ne dina leen permettre ñu gérer personnel bi gére aussi li leen di dénk comme matériel. waaw man maay capitaine Amadou Sow maa ngi bokk Batpara. maa ngi leen maa ngi remercier ñëpp. di remercier encadrement bi di remercier samay camarade de promo ñu ma bokkal stage bi waaw stage bi amoon na solo lool parce que daf ñuy jox euh, xam-xam yi nga xamante ni si bu ñu jëlawaatee si sunu bataillon yi jógee dinañ mën a liggéey si cadre euh, inter arme cadre boo xamante ni si maanaam dañuy boole dañuy boole unité yu bëri daal voilà loolu loolu. loolu moo nekkoon principal objectif bu ñu bu ñu bu ñu gagné fii nii également aussi beneen bi beneen bi voilà ñu nag suñu mbokk paysan bi comme ni nga xam ne ñun kese nekk ñu fi am na des malgaches ya a des togolais y a des tchadiens y a yëpp y a de personnes donc ñooñu daf ñuy voilà stade bi daf ñuy gën a dafay gën a jubóole dafay gën a rataxal diggante yi am entre Sénégal ak yeneen dëkk yi waaw loolu laa gisee stade bi te am na solo lool lool lool parce que daf ñuy permettre voilà si yeneen yeneen yeneen fonction yi ñuy yor. ñu def ko dafa voilà de façon bi nga xamante ni si dina mucc ayib voilà loolu laa amoon si stage bi impression impression boobu laa amoon si stage bi. y avait sept étrangers y avait sept étrangers. ban yokkute la leen stage bi di indil. waaw comme ni nga ko xamee stage bi daf ñuy préparer. on était des chefs de section ay chefs de section la ñu woon léegi daf ñuy gën a préparer pour bu ñuy demee di liggéey liggéeyu commandant d'unité daf ñuy gën a préparer commandant d'unité boo fa nekkee liggéey bi day gën a yokk nit ñi day gën a yokk fonction bi day gën a yokk tâche yi day gën a yokk léegi saat bi daf ñu préparer préparer boo xamante ni si daal mucc na ayib léegi bu bu ñu delawaatee si suñu unité yi voilà dinañ gën a dinañ gën a dolli dinañ gën a dolli lu bëri daal si si bataillon bi ñu nekk. Ngabo di Rwanda Defense Forces. Donc, euh, je viens du Rwanda. formation a été euh, enrichissante, en tout cas pour moi. Euh, c'est une formation euh, qui forme euh, des officiers subalternes, durant des lieutenants jusqu'au capitaine. Et la formation, les instructeurs ici nous forment pour devenir des commandants d'unité, des futurs commandants d'unité. On apprend tout ce qui est commandement d'unité, la tactique et la gestion des, des, ressources humaines et la gestion du matériel euh, formation euh, je peux dire que j'ai été euh, chanceux de participer à cette formation. Je suis déjà le premier Rwandais à venir ici. et j'en ai, profité beaucoup. J'ai appris que ce soit des instructeurs français et sénégalais ici au Sénégal et aussi de mes collègues de la région euh, ici présents, que ce soit euh, mes collègues sénégalais, ivoiriens et tchadiens aussi et les autres. La diversité est importante. Déjà, à la base, moi, je suis anglophone. Et donc, euh, le français, c'est ma troisième langue. Donc, ça a été un challenge pour moi au départ. Mais c'était un challenge qui, euh, que j'apprécie. Euh, en tant qu'officier, c'est aussi important de se confronter Euh, dans, de se confronter à ces genres de challenges où on se sent pas un peu euh, dans notre euh, zone de confort et voir les autres officiers arriver à déjà venir ici et travailler avec eux. On travaille que ce soit en groupe, mais aussi il y a aussi un travail individuel à accomplir. Et ça m'a vraiment aidé et j'arrive à même à mieux comprendre euh, que ce soit l'Afrique de l'Ouest comme un bloc, mais aussi l'Afrique entière. Parce que également, on a des gens qui viennent, que ce soit dans l'Afrique euh, australe et dans l'Afrique centrale.